li ma ci jot a jàngat mooy que ne diineeg jàmm yàlla mosu fee jóg malgré tamit am na tamit suñu yenn moroom yi nga xam ne ne réer nañ maanaam xamatuñu fu ñuy taxaw maanaam ci diine gi. ren li ma jàpp mooy que ne man murit laa mais ren. sama maam ji mooy xalifu général kulli tijaani daf ma touché ndax yaakaara mu ne woon sax ne ci discours boobu lay ñëwee maanaam mu dolli ñu teel ñu suñuy diine dolli ñu ñun ñi di jeune mu teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim ñun ndaw suñuy valeur amuñu lu dul loolu amuñu lu dul diine am ñuy tamit lu dut yar malgré ci gouvernement bi wax na leen ñi nga xam ne tamit fu ñu war tamit taxawee ndaw ñi fu ñu waree taxawee peuple bi muy lu am solo. ñaax xale yi pour seen diine pour ñu jàng alxuraan pour jàngal leen seen diine pour ñu xam seen seen ponk lislaam yi juróom yi juróom ponk yi pour ñu xam ko ràññee ko pour ëllëg quoi ndax xale moom lépp xale lépp lépp lu mu commencé commencement bi rek moom mooy dem. moo tax dañ nag koo amee xale bu ndaw boo amee set ans jëm kaw da koy dugal alxuraan waaw bu jàngee alxuraan ba wàcc jàng xam-xam pour am si diine pour ëllëg a tax ndax diine moom boo ko amee rek dëkk bi lu mu mu lu mu këf këf këf yow yow daal la bàyyi. ñàggan ma ci am mooy surtout mbirum góor jigéen yi ak franc yi Sénégal la majorité musulman lañ kon nag liñ ci war a sàmm bari na xalif ki mbir ci xalifa diine yëpp presque moom rek laa mos a dégg mu def déclaration wax ci loolu à part Jamra os à bon nag dañ ciy d'accord rek kontaan. Mbalgare tamit lu mu gën a touché tamit ci lu mu wax mooy que ne wàllum borom ñaari tournée nit boo bokkee ci maanaam ci xeetu islaam am na lenn lu bari li nga xam ne ne war a ci dugg. parce que jullit war naa taxaw ci koy jullit jullit tuuti tey tout le temps dañuy wax naan leen ñun ndaw ñi dañuy dellu dawaat di gëstu ndax jàng dafa am solo malgré tuuti mais jàng dafa am solo boo jàngul doo mën a xam yàlla doo mën a xam yenent bi mbiram góor jigéen moom moom dafa araam sa boo xoolee Sénégal fii moom dafay bari lool lool lool lool sa dëgg leen a dooleel sa lool du yoon sa lool du yoon sa boo xoolee yonent yàlla luut jamono yonent yàlla luut ñi nga xam leen a alagoon góor jigéen moo taxul ñu alag leen sa dëkk ba la muy rëy rëy ñëpp duñ ay góor jigéen mais yàlla ba muy alag ñoom ñëpp la alag si jamono yonent yàlla luut ñoom ñëpp la alag dafa dëpp suuf si daa leen këpp si suuf ba léegi nii xamuñ nuñ nekkee mbiram mbiram góor jigéen dañ ko war a xeex bu baax ndax yàlla buy alak ñëpp lay alagee damay bañ la daloon yoon la daloon nit yu luut ya dal ñu ñun loolu la ñuy bañ sa loolu la ñuy yàlla nañ si yàlla musal